waaw VIP People TV ah Télétas Tandian ñi ngi fii Firenze ah spécial la jóge nag Sénégal pour Firenze waaw moom bu ñëwee promoteur yi boo condition lañ koy teg ndax xam nañ li muy liggéey ah temps na sa jàmm bëri kii mooy borom Allemagne borom Sénégal Adamo léegi dafa yaru mais bés bu déconné rek naa ko takk dóor ko mais nee na ma yaru na man maay tontoom ñoo far Sénégal ñoo far àdduna nii la ñu ngi fii France rendez-vous le 29 ak kan Amar Darmanko ak kan le chanteur du peuple Wally Ballago Seck l'homme qui a partout à travers le monde explosé na Brescia suba nag la ñuy def daj dëpp bi fii ci France dee leen seetaan yéen ñëpp nag VIP euh, People parce que moom affaire bi en direct leen koy may yéen ñi nekk Sénégal waaw VIP People TV ah Télétas Tandiane ñi ngi fii Firenze ah spécial la jóge nag Sénégal pour Firenze waaw moom bu ñëwee promoteur yi boo condition lañ koy teg ndax xam nañ li muy liggéey ah temps na sa jàmm bëri. kii mooy borom Allemagne borom Sénégal Adamo léegi dafa yaru mais bés bu déconné rek naa ko takk dóor ko mais nee na ma yaru na man maay tontoom. Sénégal ñoo far àdduna nous la ñu ngi France rendez-vous le 29 ak kan Amar Darmanko ak kan le chanteur du peuple Wally Ballago l'homme qui a cartonné partout à travers le monde explosé na Brescia suba nag la ñuy def daj dëpp bi fii ci France dee dem seetaan ñëpp VIP People TV euh, parce que mon affaire bi en direct leen koy may ñi Sénégal